jërë ngeen jëf neexi tubaab Abdoul Mbaye ku xool ni mu mel ci xët mu jokk observateur xam ne la muy wax ñor na ko pap jox ma ko ñu ànd doog téléspectateur yi gisandook ma ngoog premier ministre bu Sénégal di Abdoul Mbaye ci xët mu njëkk yéen kay bi observateur journal bi nañu bàyyiwul dara bari nay poñ ci tolluwaay réew mi waxtaane na ko fa ñu fa mu njëkk moo di ñu koy toppee di mbiru déclaration patrimoine Abdoul mbay ne waa observateur ba mu ko defee booba yàgg na Alaaji Malick Gakou mi tekki ndombal tànkam bu yàggul ci gouvernement bu Sénégal te moom Abdoul Mbaye mu nekkoon kilifam ci gouvernement boobee Abdoul Mbaye ne waa observateur man ci rajo yi laay yégéen Alaaji Malick Gakou dafay démissionné na mu doxalee Abdoul Mbaye doonte jaaru ca carrément waaye ñaawlu na mu di euh, jëflante lëkkaloo boo xam ne dox na ci diggante premier ministre bu Sénégal di Abdoul Mbaye ak euh, waa Mimran muy groupe boobee Abdoul Mbaye leeral na fa lëkkalëkkale ak waa Mimran mu di wàllu mendicité gi di yelwaan gi ñu ne Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal nee na bi da koy tere Abdoul Mbaye leeral na ko fa nee na bi musta tere ak yelwaan yelwaan googee ñu bëgg tere ci réew mi ñu xëy ko waxtaane ci xët mu njëkku laas journal bi bàyyiwul kenn am na ñu bëri ñoo xam ne jox na leen kàddu ga yéen kaay bi lu ñu njëkk xamal moo di ca diwaanu Thiès sëriñi daara ya fa nekk ci fat wala ñu jëm jëmee ci nguur euh, gi ak yelwaan ci bàyyi cagatu gi mu mel ne tungeeg man ne ci réew bu Sénégal Sidy Lamine Niass moom it jote ca kàddu ga wax ja moo di bu ñu kenn fat nguur gi ci boppam moo dàq yelwaan ñëpp nguur googee njiitam di eh, Macky Sall xëy na ci xët mu njëkku Walfadjri du moo fa nekk waaye dañ ko faa nekkal Thierno Lo jëwrin gi amee woon tourisme Thierno gi amee woon environnement ci jamono Abdoulaye Wade xëy na di a a lu bare bare bare li nga xam ne Idrissa Seck xam na ko Thierno Lo wax na ko ci journal bi nga xam ne moom moo di observateur wax na ko kon ci nga ne moo di Walfadjri Sud Quotidien xëy dikk ñun ci kaddu yu mu lii la wax nee lu ko waay di waxal na nga bàyyi ba mandaam jeex boo koy jugé nga soog ko jugé nañu xaar rek bu mandat bi jeexee lu neex waay wax mandaam boobee moom populaire te la xëy dellu si ak ñun moo di lan ndax dañ koy jaar ci référendum ngir wàññi ko wala ndax assemblée nationale dañuy jël député loi boobu yóbbu kaddu gi moo di Moustapha Cissé Lo borom fetal ga ca Mbàkke nee na moom bu kenn xaar ci moom muy woote woote pa boo xam dafay wàññi mandat njiitu réew mi Moustapha Diakhaté mi xam ne moom moo jiite groupe parlementaire Benno mooy ci seen biir bari na ñoo euh, ñu wàññi mandat njiitu mi Macky Sall Jean Paul Diazé wax na fa lii la fa moo di Macky Sall moo digg woon lu ni mel wax ji nag yeggalew ko ci xët mu njëkk journal bi nga xamante ne ji moom moo di populaire Macky Sall moomee mi ngi ci xët mu njëkk a kaay bi nañu Dioncounda Traoré mi njiitu war naa ñëw Sénégal tey ji lañu ko fi xaar ngir ab tukki nemmeeku la Sénégal ne ko tukki yamul foofee ndax bu weesoo Dionkunda Traoré mi ñuy xaar tey ñun suba ak jàmm Kili Souleymane dina ñëw ajuma jàmm Mohamed VI buuru Maroc dina ñëw ci réew bu Sénégal Sénégal googee ki ko jiite woon di Abdoulaye Wade doom ja Karim Wade mi ngi xëy ñu koy jaaba jonge ci yéene kaay ñu xëy ndol pap ndil ma xët observateur la naan mise en demeure bi nañu Karim Wade def ci wàllu enrichissement illicite ak loolee libération tuuti yëf yi ma ngay gën di juróomi fan la am ngir mise en demeure boobee enquête nañu ci lu ngeen ci xamul moom Karim Wade samdeg jàmm dana dem janoo ak procureur ba leeral loolee moom Karim Wade moomee yéene kaay ñëw Sénégal bu ñëwee Sénégal Dakar lay doore ak marche bleue jaar waa woon daal teere ji Touba yéene bi nañu waaye marche bleue boobee ak visite boobee waa Touba bari nay kaddu yu fa ci ay kilifa ca moomu ne réew ànduñu ci ñu daje ji ci xët mu njëkk observateur tribunal di Ndeye Khady jiite woon fonds promotion économique ci ñu tëj ko ca kaso ba di ko toppee mbiru blanchiment capitaux détournement deniers publics ak jëf yu ni mel Ndeye Khady bu waxul waxal nañu ko en observateur ci compte Twitter bu Ndeye Khady ci la ñu ay xibaar xibaar yoo xamante ne ji ëpp naa sax jëme kaw nit di ko dégg yéen kaay bi nañu Ndeye Khady ma ngay leeral te nag yamu ca ndax nee na bu fekkente ne niñ ko ñii ba wàllu politique ba lépp ci dugg ci wàllu tàggat yaram indi leen ma mu njëkk stade yéene kaay kii moom jarul ma koy présenté doonte sax xaw soppeeku xaw naa jëm ak moo ñu dénk ko équipe nationale olympique moom JO moom lay wàcc ñu bàyyi dem ci tous les sports ñu xool gaynde Alioune Giresse bi xëy ci ñun juróom ñii ngeen di gis journal bi nañu ci jamonoy Amara Traoré ba ci Alioune Giresse bi jàppee leen les cinq inamovibles noonu la leen yéen kaay bi xëy jàppee waa sport moom xëy jàpp ca lamb ja lamb ji nga xam ne am Ama Baldé ndam li mu euh, a doon a kaay a kaay bi a xel mu di la quotidien ku ne xam na ne Zos dañu wooye le savant euh, Tidiane Faye moom la ñu professeur Lansar euh, a waa sport moom xëy ci dikkee ne ne moo di ne professeur bi Jos delloo na ko sixième daggitukaye mu di essai yi ma dem ci grand place ak lu doy waar loo xam ne am na fa naam viol dig yàkkataan du lu bees ci réew mi waaye viol gi dafa xaw a doy waar li tax journal bi nañu jàpp leen benn waay boo xamante ne ji ñeent fukki at ak ñeent di 44 ans moom la am waa joojee moo violé maanaam moo yàkkataan benn maire bu toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñett maanaam 73 ans mi ngi ci grand